Yagana Yagana Yagana na yàgg na bi fi uh-huh. over abonné Dental TV bienvenue une émission art international 100 culturel bon tey ma am dalal sama artiste boo Iba 10 MC artiste rappeur boo il est de la banlieue dakaroise artiste rappeur Bohamontene. il fait bien son boulot Salam alaikum Iba. di bege gaay yëpp di bege ñi abonné de dental tv di bege waa tuwaan pël sama site waa ñaag ñu gëm sa everywhere képp koo xamante ne tey yaa ngi bi gaal seen wala nga nekk everywhere ci àdduna bi di bege iba aka the noise maker égal à ah, 10 rappeur yeah ñu wax lah, salaam alaykum di bege bay sama démarrage ci rap tuwaan pël du hein parce ah. que comme nu ko gaay xamee iba jàmmagul lu juddoo wala yaroo mais tuwaan pël laa defee sama premier pas ci hip hop bien vrai que nag jàmm gën xëy na peut-être la ma la ma rab gën a dugg ndax jamono yooyu maa ngi a nekk booy ñi nga xamante ni tey fekkee nañ ko tey dañ ko mën a jugé ndax dama nekkoon ak samay grand waa BK Under nekkoon jàmm gën doon rap da ko fa teg bu ñu mësaan am concert dama ñëw ànd ak ñoom xam nga taxaw ci podium bi nii gàddu seen i cours sa ay ñoom seen slogan ay cours la ñoroon léegi maay gàddu benn cours bi taxaw di cëppi cëppi xam nga ñu bëri ko damay rap audio du rap mo mais carrément ba mu ñëw ba Tivaouane Peulh xam nga commencé nak waaw di di di commencé di bind parce que demoon na bam ben niveau niveau niveau niveau d'instruction instruction bi bind commencé ma yomb ma xam ni ma bindee vers et cetera ci laa commencé di émerger rap ay vers 2011 2012 ba yàlla def tay ñu nekk fi tollu ci benn niveau bi du ma ne sori nañ mais tollu ci benn niveau bi ndax jaar nañ fi bari jaar nañ ci ay compétition nationale gars yi xamuñu ñu ngi teg ay événement chaque année lo xam te ne lu jafé ñu bari teg di teg di teg ñun yàlla def na tey ba suñu kat 2018 bi nii chaque année depuis 2015 chaque année ñu ngi tëgg concert annuel au début ñu bëri quoi booy rap passion moo la ci dugal bëgg li ngay def moo ci dugal wala ngay gis benn grand mu doon rap mu neex la nga dugg ci loolu mais après au fur et ba ngay dem da ngay gis ni yow boo xoolee ci banc touche bi nga gis ni xam nga ñu naan jour jour tey jour bu nekk ci banc bi bu nekk ci banc bi xam ban poste mooy seen quoi léegi boo xam man poste mooy seen nag yow di nga xam yow fii na laay def saay ba ba ba fatu ko ñu noonu la demee te yàpp da dem ba benn instant ni carrément bi manqué na lii rab bi manqué na lii euh, philosophie gars yi fii la toll nga dem a dépassé loolu ñu ngi koy def tey ñu ngi jëm ñu ngi jéem a dugal lu bari ah. te incha allah rabi ci mixte bi nga xam moom lay préparé muy lancement bu mixte bi génnee lancement boobu mu tudd gars yi dañ xaar album te du album du ndax dañ ci def loo xam ne dañu xam ne carrément kat non rab bi lii la manqué woon incha allah grand yi moom jaruñu wax ñu si mel ne ñoom rapajo ñoom pifrage ñoom jaruñu wax parce que def nañu li ñu war a def macha allah amul benn critique boo xamante ne war na leen koo collé vu ko euh, nouvelle génération bi nga xamante ne moo fi nekk comme ay ay Akhlou Brick ay Dip Doundou Guiss ñoom waa Kabilane Elzo Diamandong xam nga waree ba daal ñooñu mën nañ ne lépp luy rab di demee tey ñoom ñu ngi koy def nga xaw a yomb yow par exemple yow fi nga toll ak ñoom niveau bi nga xëccoo ak ñoom est dina yomb. waaw ah, xam nga boo yoree tey benn a téye mais su ma ñëwee loo yor xëccoo ak damay dem xool li nga xam ne amoo ko mu ñu indi ko comme ça après day def différence noonu kese la demee quoi te prévoir nañ ko ci mixtape bi ak album bi di ñëw insha allahu rabbi te bu génnee gars yi nga xam ne carrément kat ah Iba lu na wax kat saa dëgg la lii la bëggoon lii la ma rab bi manqué woon indi na ko parce que tey du ma ne li gars yi def baaxule du ma ne baaxul quoi mais nul n'est parfait gars yi xëy na peut-être am na tamit xëy na seen mën-mën eggu fa am na bu ñu bu ñu bu ñu

Euh, en parlant de rap mën nañ ne fu mu toll nii leneen lu génn rek dañ ko ci yokk mais rap am na lépp. li nga wax mooy ma gars yi ñu def baaxule néew mais xam nga ni ko ne fi nga toll fa nga toll comment élève bi nga xamante ne tey A B C D E leen la ko A E moom mënu ko xam comment nga A B e nga xam ne peut-être moom jàng na ba Z moom bu ñëwee dina xam ne Z saa yi kii manqué na Z ku nekk tey bëgg nga tey yow def loo xam te ne tey kenn defu ko comment commencement man tey su ma ñëwee tey par exemple rek exemple te dama ñëw sama biir dëkk avant tout ma xool sama dëkk manqué ni li ma jëm koo indi comment nga tey yàlla def na tagguma sama bopp te dama ñëw Tivaouane tey damay jox respect sama grand yi fa nekk ñëpp ñu ngi def macha allah seen carrière mais dama ñëw tey dëgg la xëy na du ma nee gars yi mënuñu de ñu mën rab a ko nekk ñu am talent am stratégie ñoo fa nekk man ma ne damay jaar benn côté mais taxul ma critiqué ma def ma gis ni peut être xëy na peut être Tivaouane ñëpp a ngi ci biir Tivaouane mën ma génn biir Tivaouane comprendre nga lii ba tur bi dellu si waat biir yu Tivaouane maanaam ku nekk sa stratégie ngay ngay ngay ngay ngay joobee maanaam ku nekk tey ñu naan yaa xam ne xëy sa bopp jinax su ma ñëwee gis ni carrément kat ah saa yi a ngi naan ah ah ah mais su ma nee ah damay sama a bi day nekk aw mbooloo mi quoi mais dama ñëw ba sax gars yi ne ah ma ne o comprendre nga tey am na sama benn saa xamante ni bàkk bi saa mi tudd bàkk bi prend ego dribble mais ñu bari tay bu ko dina no mais trap ma ñu ko tek trap ma tek ci ki ma tek ci ma tek ci ay eh, sabab sabab yu nice ji ni kemte moy teggal ci te am jam nga la juddo mom sama gain la mom la ñu bu jéggara mu tek mu tek mu tek tek tek percussion li ñu ne ñun ah gis nañu ñepp ngi def ego trip mais suma ñu def ego trip say xene peut-être ego trip bi mu day ndur ego trip yépp mané comme que rap affaire jeune la té rap képp ki rap da nga say mal la mal la ñu gis ni lamb affaire jeune la képp ku taxaw naa saa yi maa fi ëpp doole da ngay gis yaaw jaal sax ne saa yi doon ñu gis ni carrément comme que am na benn similitude bu am ñaari côté yooyu ñu boole ko indi ambiance su làmb ci norme hip hop mu nekk di nouveau ko nga loolu la ñu bëgg chaque fois fu gars yi doo xalaatee jëm fa xalaat teg feneen ñun noonu la demee quoi. ça veut dire que da nga jàpp ne rap bi manqué na daal ay innovation te nga bëgg a ñëw pour innover. mais rap kër gu lu pare la <laughs> rap kër gul pare la tey dafa nekk kër goo xam ne tey jii nii xoolal gis nga da ngay teg R plus 20 def R plus 21 maanaam rab mënul pare rab nekk loo xam ne day ko tënk ci benn këyit rek ne lii la ku deful lii raboo non non loolu loolu nekkatuñ jamono jooju rab nekk na loo xam ne tey jii bés bu nekk rek nit ki nekk war nga mën a xalaat loo ci yoo mu gën a nice même bu dee benn néeg la sax wala bu dee benn xeer la sax kenn ñëw teg teg affaire yi gën a kawe quoi noonu la demee dëgg conseil ama tey boo tëgee boo tëgee première année teg deuxième teg troisième da ngay teg la non boo tegee un teg daaw daaw ma li ma gën a marqué li ma gën a marqué daaw dama taxaw sama concert sax sama rongoñ xaw tuur ndax dañoo amoon problème mu saal fu ñu tëggee fu ñu woon tëggee dañ ko dañ dafa amoon benn problème fa amoon ñu dem ba apex saal boo xamante nii saay xolol genre c'était pas adéquat saal bi xolol décembre 23 décembre mu sedd guy nit ñi njaamee fu sori tey ñëw assister concert bi nga gis ne ñi fi ñëw ñëpp mooy ci kenn ticket ñëpp jënd seen xaalis ticket ñëw jóge fu sori ñu fekk la foofu seddaay bi metti gars yi taxaw fa kon loolu bu leen ñu gëmulee saa yi loolu xam rek moo loolu quoi. Iba yaa ngi ci art international ba léegi mais xam nga rab bi rab bi dafa am benn problème bu ci nekk mooy que nit ñi ñooy dundal rab bi est rab bi tolluwul foo xamante ne war na dundal ñi koy ñi ko doon dundal maanaam dundal rab bi.

yaa ngi préparé événement wa sa waa saayit gëm nañ la comprendre nga léegi yow yow ci ci yan anam nga tënk da nga am moyen da nga am ku la jàppale si ginnaaw wala qu'est-ce que wala Iba demee ak ak expérience bi. waaw xam tey buñ la tegalee nekk naan non nu muy demee di yow li jox caméra bi taal ko rek xam nga tàmbali sa présentation tàmbali émission bi waaw noonu la demee boo xam si expérience. duñ ne nag am nañ financement parce que buñ koy wax dañ koy wax te de, aussi quoi Temple, ñun public temple ñu ñuy jàppale public temple ñu ñuy jàppale mais ñi nga xamante ni ñoo ŋànk temple, Peulh autorité bi Tivaouane Peulh non xooluñu gisuñu te pourtant yow imaginal tey yow ngay def ni tey daaw dañu indi télé chaîne télé nationale indi biir ko lañ indi lañ indi suñu suñu concert nit ñi di la wooye fu nan bu Tivaouane Peulh fuy ngeen parce que léegi ñeen di ci télé ñu show of TV sama événement tuddul show Iba show off TV la tudd kon parce que suñu dëkk lañ bëgg mais ñi nga xamante ni tey ñu ngi taxaw naan dañuy xëccoo dëkk bi kon bëgg nañ dëkk bi te yow ki nga xamante ni mu ngi ñëw pour def pour pour jàppale dëkk bi yow euh, xooloo ko gisoo ko xam nga tey pour mu gis sa saare da koy dawloo kon après kon ñooñu xam nga doy na waa quoi mais public bi ñoom ñu que tey boo génnee sa ticket gars yi koy jënd nga benn benn benn départ encore nous sommes engagés parce que tey ku nekk tey amul bu dëkk engagement tambali wu lu tay ñun tay ñu ñu dëkk bi tuan pol ne show of tv de la ñuy tek kon tay nak bu ñëw ba genn cadre tv ne gal sen kon say gal sen fa ñu gisseen bop ci ñun ñola démé té lolu dalu yagatul dara ñam nga xam mais nit ñi dégg guñ ko ça veut dire que nit ñi duñ leen bayyi xel ci côté bobu non genné wax guñ ko diga ma lo gis bëss lay xaar ñaala lepp lo gis bëss lay xaar parce que mixte bi ma lay genné guñ lancement genné guñ té lancement tay dafa am ay single yi ko wara yi ko wara ñi ko war a accompagner avant moo génn léegi single yooyu nag saa yi gars yi dañ ci gis seen bopp man foofu laay loolu moom lu ñuy lancé nit ñi mooy nañu yeewu ko c'est que àdduna nit ki xamul bul bañ ko la nax de mais li bon mooy yow nga nax sa bopp te Sénégal dafa tàmm nax ko parce que da ngay ñëw tey xool kenn nga xool ni ibaa mi kat saa yi <laughs> boppam la fi nekkal parce que Iba man du ma gis Iba du ma dégg Iba gëw ma man xaw ma sax xaw ma Iba moom xamul sax ci laa nekk comprendre nga ibaa dem ba xam ni carrément instant bi soxla na après Iba ñëw naa ma saa yi non dama leen defal li dama leen defal la dama ne li laa nga ne ah wax nga wax nga nga jox ko sa carte mu gañe la mu gañe pare toogaat saa yi balaa gisaat 5 encore li yow yow wala ñu jox la benn 5000 boo xam ne boo lekkee tey <laughs> ci benn fan la yem mu jeex parce que 5000 saa yi mun sax dépense boobu bu doy nga kon nit ñi dañoo war a yeewu xam ne carrément saa yi yi nekk fii nii Sénégal fii nii seen bopp lañ fi nekkal politiciens yi laa wax politiciens seen bopp lañ fi nekkal ku loo ciy fal saa yi xoolal ku ci faloogul da lay taxaw di la raam di la jaamu mais bu la bu fa xasee ba falu saa yi non amatu xamatu la kon nit ñi ñoo xool seen intérêt du ma kenn votel kii votel kaa mais saa ku nekk nga xool sa njëriñ nekk nga def ko bu ñu ne sama ceeb bi day niin tey rek xam nga bu subaa saa yàlla baax non non Sénégal dafa war a bàyyi yàlla baax na yàlla yàlla bay sa tool quoi na gaa yëpp manko fexee ñëw le 8 décembre show of TP képp ku am te bëgg gis spectacle comme te ne bëgg nga gis ambiance gars comme te sa xol bëgg sa xol féex non dañuy ubbi année bi dañuy ubbi fin d'année bi 8 décembre ku ñëw biir tiwaan pël non di nga sa xol dina sedd quoi yaakaar naa ñu fi ñëwoon daaw saa yi waxtuñ dara ñoo ñoo ñoom dox ñu leen woo ñoo ñu woo seen bopp bañ ak ñu bëri ñu may ab boo ko jàllee saa yi

jóge ba Tivaouane Peulh di la respecté di la jox suñu loxo bu baax a baax di leen digaat daj beneen yoon euh, ci suñu beneen émission art national ak tey ci bit bu dëgër la may njaab gil ma dëti marab lu yëkkati seen xët yi bokk ma ci man man bokk ma ci te booy ne fii bul dof ba boole ma ci ndax biiru bële te kii du kële man ki nga may tëkkale lay jàpp rekk di këll kële li ngay def vëm ngir def ko yow li ngay soob rek ngir am ko ma jomb nekk nëmbatu fu ma teew ñëpp nëbbatu ma sadig ni mëbbatu faat képp ku ma bëggul au secours du fi am yoon ku nekk xaar sa tuur arme lour pare ngir jëlee fi rabbu amul fond forme